politicien ci kër serigne mom waaw damay wax na ñett yi képp la muy yaan bu ñuy dem dañuy sol luñ tamut mhm. bu ñu yeggee di digge luñ mënut buñ mhm. noppé di tari luñ mokalu ñom loolu lañ xeq ak serigne ci dama xamul luñ ci jublu <laughs> waaw assalamu alaykum alaykum ye assalamu alaykum alaykum ye assalamu alaykum alaykum ye assalamu salaamu aleykum aleykum lay bul fàttee cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk am bul fàttee cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk am d'accord Cheikh ba tey dañuy continuer ci lancé bu gàmmu gi parce que tamit Antoine Diome tamit moom it hmm. euh, wër na Euh, vraiment daa dee def ay kii wax ci wàllu ay aaya am am na fu mu kii aaya yeeg ak salaatul fatiha ndeysaan moom oustaz suma bu nee na oustaz Antoine Diome la ko tuddee léegi parce que noo jàngatee Antoine Diome ak tamit discours kiyoom yi nga xamante ni bi moom la def burdu yi mu defaat encore ci mbir yi waaw Antoine moom daa ñëw gàmm-gàmm gi moom dañ doon gàmm moom <laughs> mu daal di gàmm gàmm gi waaw wane na ne itam moom élève Macky sàll la élève Euh, Oustaz Macky Sall <laughs> ci école am la génne. waaw waaye duma jël ci Antoine. Uh-huh. ak gàmm gi duma ko jël damay jël politicien rek. waaw d'une manière générale ak sëriñ. waaw politicien ci kër sëriñ moom. waaw damay wax ne ñett yi kepp la. muy yàlla bu ñuy dem dañuy sol luñ tàmmut. Mm-hmm. bu ñu yeggee di digge luñ mënut. buñ mm-hmm. noppee di tari luñ mokkalut. ñoom loolu lañ seq ak sëriñ si damaa xamul nag luñ ci jublu <laughs> waaw. <laughs> non non non loolu nag sama xel dañuy sol dañuy sol luñ tàmbut Antoine lim ah, ah, sol ah léegi léegi rek dañuy sol luñu tàmbut ya. digee luñ mënut dañuy luñ bokkul ngir sëriñ bu ne ñun maanaam bu ñu ne politicien ak bi sol narut bu digee yi jeexee nga tàmbalee tari li nga mokkalut waaw ah. na dëgg de barki yàlla rajaatoog yooyu <laughs> waaw hmm. waaw non Cheikh Bara rek boobu vraiment Anto yow Cheikh Bara boo paree am nga am nga problème yaag Antoine. waaw man nag xam naa ki leen na sëriñ si dañoo neexa a nax. <laughs> waaw kookaa leen nax. kookaa leen nax. Hmm. ki na sëriñ si dañoo neex a nax kookaa leen nax. Hmm. waaw loolu moom dëgg la. waaw ñoom daal dese nañu respecté sëriñ si ni ngi leen war a joxee cër Cheikh Bara.